li may def mooy ñaari mandat yu tegaloo ci bis constitution bi li mu wax ñaari mandat yu tegaloo kenn mënatu ko weesu kon man damay jàpp ne loolu président wax ci gémmiñam moom laa gëm te moom mi ko wax xam naa ne gëm na ko parce que xam na ni sénégale lay waxal te sénégalais yi xam na ni li mu xam na moom lu muy wax sénégalais yi réew mi nag dafa am yoon dafa am ay texte dafa am ay loi yoo xamante ni moo ko dënk te wax dëgg yàlla xam naa ni kenn gënul xam président de la république ni kenn warul génn sart réew mi ndax boo ko génnee mën naa indi leneen loo xamante ni du baax ci réew mi kon vraiment troisième mandat bi moom man aw ma ci lenn lu may wax damaa gëm ni rek comme président wax na ni du ko def man jàpp naa ne du ko def.